teraanga doomu aadama liggéey dong moo ko mën na joxe te lu mu néew néew moo ma gën a leneen lu ma mën mënti am jamono liggéey jamono liggéey la mu liggéey war na góor wanna be again. man xam naa ki ma indi de 2014 dama leen dinañ defar taset defar nañ taset mais ki ma indi aussi xam naa ko ca li ci kanam rawuli bët donc ñu mën a gëm yàlla xam ni projet bi suñu projet la parce que li ma bëgg mooy jigéen ñi nekk ci commune bi ak jeunes yi nga xamante ni amuñu chance am ay liggéey ñu ngi dañ dañi ci tool yi ak feneen ak feneen donc lu nekk mën ngeen ko am ci lii du lu ndaw commune yi ko bëggoon bari nañu lool lool lool ma xaar ci sama tànk suñu alal la ñun waa Tassette nañ ko sàmm maanaam dañu bëgg Tassette mooy nekk centre ganaar ci Sénégal loolu nag dafa am solo de 558 communes commune même nekk fii ñu indi fuñ bu ñu neetee ginaar rek ñu ni Tassette mais kenn waratu fi chômer bu boobaa donc maa ngi koy soumettre au vote délibération cinquante hectares ku ci d'accordul ku ci d'accord mu yëkkati porosi bi moo tax may wax doomi taseek dafa sonn te li tool yi bari bari doomi taseeg gisu ci boppam parce que yóbbuwuñ leen fenn ci liggéey bu gën a miti lañ ko yóbbu ñu bëgg nag porosé bi su ñëwee na ci waa taseeg gis seen bopp suñu doom yi nañ ci gis seen bopp bu ñu indi nit ñi ci àllar bi ñu toog ci bureau yi dañu commentaire loolu am na fi te loolu nag loolu la ñu mu jeex fi ñu bëggee suqale créer ay emploi yombal dund gi benn yoon lañ am mooy agro industrie ma jaay lépp lu ma am nax bitim réew ñibbi si Sénégal tey jii Sénégal mi ngi importe mille soixante dix milliards de francs CFA en denrée alimentaire te fukki denrée la donc xëyu ndaw yi man gëm naa ne suñ ko bëggee suqali foofu lañ war a jaar doomu baykat ndax su leen ko waxee war ngeen koo gëm maa ngi tase déjà am na benn ferme fii mu six bâtiment wu trente cinq mille poulets man maa ko moom man ak dem Cissé ñetti ferme yooyu su paree taset mooy nekk capitalu avicolu Sénégal jënd naa fi beneen six hectares boo xam ne trois cent vingt mille pondeuses lañ ci war a def ak usine nen usine laa wax de waxuma ferme amagul Sénégal te loolu dana am taset projet pondeuse bi trois cent vingt mille pondeuses avec un taux de ponte de quatre vingt dix pour cent su ma leen ko xaymaa ñaari junniy tablettu nen lay def par jour ñaari junniy tablettu nen par par bis jigéen bu bëgg a yëngatu mën nga ci yëngatu jeune bu bëgg a yëngatu mën nga ci yëngatu. dama bëggoon euh, juste remercier bu baax partenaire bi ñëw ak monsieur le maire mi nga xamante ni ñoo nekk ci liggéey bi ba lii mën a am ñu mën ko présenter. ni ñu ko defee tey nga xam ni lépp lu ñuy permettre conseil municipal bi moo habilité jël suuf jox leen ko wax ji jëral ñu ciy ndax da ngeen a jënd seen suuf te boobaak léegi. dégouñu ben suspicion à la base remonté ko ba ñu am coow ñu naan nangam ak nangam mais japp naa ni bu fi achète bi nekkon sax ak présent projet bi ni ngeen ko présenter yaakaar naa ni waru leen woon a jënd conseil municipal war na leen délibéré cinquante hectares ngeen liggéey parce que niñ ko présenté wax dëgg yàlla lu am solo la moo tax je vous félicite et je vous encourage donc dañ leen di soññi à ce niveau toutes les compétences yi nekk ci commune bi ngeen privilégier leen lu fi amul nag mën ngeen koo jéggaane mais lu fi am il faut vraiment donc euh, promouvoir les talents qui sont à tasset ngeen jàppale len leneen li ci dess moy vos rapports avec le conseil municipal na accès ci transparence parce que c'est extrêmement important façon partenaire bu ne ñëw na commune Tassette bu ñu ñëwee wax wax ju rafet wax wax ju neex waye mujjantal gi manam dara da ci dul baax donc yow japp nañ ne melo non lepp lo xamantene ne ci commune tasset te nga xam ko boko tege ci loxoy wa tasset ñu saytu ko yaakaar dina bax ci wa tasset yow tamit dina bax ci yow si toutefois que le conseil bien le maire me le permet avec le partenaire. je peux mettre en place un comité local chargé du recrutement de la main d'œuvre locale non qualifiée. On a un chef de village qui xam ñom lañ gëna impacté à tout de rôle ñuy présider comité bi. Manam bu fekké partenaire nous soxla nañ 10 jeunes yo xamné ñu bëgg ñu de manière démocratique. Monsieur le maire ngi parce que jeunes yépp ay jeunes lañ. Ñu xol légui attribué ñuy attribuer les les les, les emplois là. que leen bëgg xamal moy doom la bëgg doon fi citoyen la bëgg doon fi li ma leen bëgg xamal mooy mag laa bëgg doon fii rakk laa bëgg doon fii te loolu li koy waral mooy école bi mën nañ cee jàpp xam naa importance su nan la école mën na élever nit ba mu jàppale ay mbokkam monsieur le maire nag peut-être tey du waxu gërëm mais dinaa la gërëm parce que dem naa fu nekk na maire bu nekk aussi xëcc na ma juróomi mairie ñoo ma doon xëcc moom mu gagné Euh, monsieur le sous-préfet maa ngi di remercier monsieur le préfet maa ngi leen remercier monsieur le commandant maa ngi leen papa yéen ñëpp maa ngi leen di remercier loolu daal moo nekkoon suñu tànk tey te su ko dëgg rek lalee danañu ànd lu ma am fi bëgg naa ko bokk génn